ndeysaan arbitre sifflé waat na ci diggante Seck Ndanane ak Franc Mbeur ñoom ñaar Franc Mbeur Seck Ndanane door na si Franc Mbeur Seck Ndanane jàppante nañ jàppante kaw ñaari xale yi Seck Ndanane ngay door Franc bañ na Franc am na mbër du ngemb Seck Ndanane ngay door Seck Ndanane ngay door Seck Ndanane ngay door Seck ndaanaan Franc mbër Seck ndaanaan Franc mbër Seck ndaanaan Franc mbër Seck ndaanaan Franc mbër ñaari xale ya ñu ngay xeex tegal 16 doon koy tegalati sër ee eh, tegalati 16 waaye Seck ndaanaan mi takkati na ko sekk ndaanaan waaye Franc ndaanaan la lan la lu xew arbitre sifflé na lu xew mi-temps oh fi mu waaye Franc mbër la Franc mbër la de Franc mbër la baa ngay waxaat ñaari mbër yi arbitre baa ñaari mbër yi da waxaat li nga xam ne mooy li lamb bañ ak li nangu ak li des ci temps laaj na suisom yi juge nee na ko pare nañ arbitre sifflé waat na ndeysaan ci diggante Seck Ndanane ak Franc Mbeur tey journée Momo production ñu naan ko Modou Baye Fall Seck Ndanane Franc wan ginnaaw Seck Ndanane moo leen wan kanam Seck Ndanane Franc Mbeur Seck Ndanane ñaare xale yaa nga ca sekk naanaan Franc mbër ndeysaan Franc mu ngay accéléré ay dóor Franc mu ngay accéléré ay dóor sekk naanaan a nga ne tacc jàppante nañ Franc dugal na uppercut sekk naanaan a ngay xool fu mu jàppee sekk naanaan a ngay xool fu mu jàppee Franc sekk Franc dóoraat na dóor na dóoraat na Seck ndaanaan Franc mbër Seck ndaanaan Franc mbër Seck ndaanaan Franc mbër ñaari xale ya eh door fayu ñoo ngay door am njaay joxal joob am Ndiaye joxal Diop baa nga saf sap ndeysaan Franc Mbeur Seck ndaanaan hee Franc Mbeur Seck ndaanaan da koy génne saaku ya wala déet saaku yi fekkiwul kenn ku fa dem yaa ko fekk mu ngay wër xale yi ñu puusante mbete ay poids lourd <laughs> ñaari xale yaa ngay puusante mu ngay dóor Franc ngay dóor Franc ndaanaan fu mu jàppee la bëgg Seck ndaanaan Franc mbër Seck ndaanaan Franc mbër ndeysaan ñëwaat ñoo ngay ñëwaat ci digg géew Seck na arbitre sifflé na avertissement Franc avertissement mbër ndeysaan balaa ngeen a xaañ ba mu yegg foofu di ngeen wax lu set Franc Mbeur Seck Ndanane damantey baaraam Seck Ndanane ngay dóor Seck Ndanane ngay dóor am na troisième avertissement ñoo ngay Seck Ndanane Franc Mbeur mu jéem a dóor galgal demul sekk ndaanaan Franc Mbeur cey yàlla cey làmb kenn xamul lii lan la oh waykat baa ngay way mboot mboot mboot eh Seck Ndanane dara amul eh dara amul dara amul dara amul dara amul ah daa mel ni Franc Mbeur daan de Franc Mbeur daa mel ni daan Franc Mbeur daan Franc Mbeur daan na Franc Mbeur daan na Sekk Ndaanaan